saraax la nuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Onde le Fou bu écurie xam sa cosaan ma yëkkati ay dëggam teg ko ci sunu làmb moom Onde le fu lépp lu ñu doon nëpp nëppal ak mbës mbësal ci écurie xam sa cosaan yulli na ko ci sunu làmb lépp lu ñu doon bay bayal xëy na joxat bi ko baaraam lépp la ñu doon wax ca suuf te kenn amutoon fit yulli ko ca penc moom moom Onde le Fou yulli la ko lay ay kàddoom ci sunu làmb mooy xam sa cosaan ne travaille plus sérieusement xam sa cosaan bii ñuy wax damaa bëgg ñëpp xam ne liggéeyatul moom la mu xam ne mooy écurie ba benn amatu fa mbëri ñëwatu na entraînement ka jiite écurie ba di Malick ñi ngi ñëwatu fa xew bu dee Jordan moom kenn gisatu takk ndeeram ci écurie ba depuis ba ko rëg-rëg daanee ba léegi kenn gisatu ko mu teg tànkam ci écurie bu dee naaru sokaas moom combat ak double moteur képp moo ko indi woon écurie waaye ba mu weesoo ba léegi kenn gisu ko kenn tegu ko bët bu dee soq moom it combat ak gàmmu géey moo ko indiwaat ci écurie ba mbër yi ci seeni entraînement kenn gisatu leen bu njëkk dañ doon xàcceendoo di dóorandoo waaye léegi sunu entraînement waaye liy saafara bi mooy ñu am staff bu baax bu ñu ca noppee ñi nekk ci écurie bi di xam fi xaalis bi di dugg lu ko mooy écurie day gën di deltu ginnaaw kadu deltu ginnaaw mooy maître Baboucar Cissé avocat bu Luc Nicolaï May demandé liberté totale moom Luc Nicolaï May ñu téye woon depuis le 19 boobee ba léegi mu doon waajal combat royal avocat ba maître Cissé wax na ca la koy ñaanal rax ca dolli ne jàngoro ji dugg ci réew Sall loolee nag danañ ko nangoom duñ ko nangu tey ci àllarba ji bu jotee lañ ciy xam dara leneen la xam dara mooy diggante Mor Kankang ak Caatu Ngewel kan moo ci mën sa morom ñaari gone yi ñaari techniciens yi seen combat ngi woon ci xelu amateur yëpp Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production moo taxawal bile soog jàpp ko le 11 ci bile combat la xamee ndax Mor Kankang dana fayul fils de Zallo wala déet bu ñu demee ca lit sans frappe Podor la woon le 8 décembre mu dellu si waat daan fa caaka fay ba mu jógee foofee la dem Passy daan fa Sanderep le 4 janvier ca Sokone mu daan fa Boy Faye le 30 novembre ca Fatick mu daan fa Moustapha Ndour le 24 février ca Diofior mu daan fa Ndangaan 10 millions yi jag si tegoon ca arène nationale Cheikh Tidiane Niang ko daan en demi waaye boobu yóbbu na loolee boo ko xaymaa ci koppar la mu am ci galaay mu ngi toll ci 4 alxayri mu jénn ci aji boobu sëy suba lañ koy takk ca parcelle unité 3 à partir de 17 heures mbooleem kuy reporter te yëg mel yaa ngi leen di ñaanal yàlla jubale leen te ñu am ca njaboot ju barkeel fa nuy jeexale mooy ca mobile 2 ma ñu jàppoon ne dañu ko convoqué woon foofeel ca CNG yenn média yi wu ci làmb fii ci réew mi dañoo bindoon ne mobile 2 waa CNG dañ koo convoqué la waraloon convocation ba mooy dafa joxe woon a fës ci etu yéen